يلا يلا يكو ستري يلا يلا تخاو نيب ظاهرا وباطنا كان نكونك لو رجال يلا بوكو غيس امنا ني في جوتي ген سين رانغوي صاح ني بالما ندخ جوبلو ما سي لول دابا تولوك حقيقه حقيقه لا ها بوما لين بانيول وون جينا صاح دينا خوس جم فنان واه waaye nag dama doon di bañ gêné te itam am na ñoo xam ni seen ñeewant daf leen ëpp doole waaw ñu ngi ma koy wax yóbbante bi ni ma Moussa Gueye nee bi ñu ko telefone ni ko ñibbisi nga ci lay soog a wàcc ci nen bi mu toogoon waaw dama dafa daanu ci suuf ndeysaan waaw nee nga kon nag bu paree mu abal ma nen bi bokk waaye fekk na عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا li dox ci université ren bi bu ma fi fekkoon rek mu ëpp waaw mu am te fekk nekkuma fi moo ñu jig waaw looloo tax rek may ma préféré absenté ba xëy na tey rek comme mënul ñàkk alifun baawun bu ñu leen mën a jox rek ñu jox leen ko nit ñi déglu texte bi xam nañ ni ceeru li ma bind waxuma ko waaw waaye ñu bari dégluwuñu sa waxtaan bi waaw ndeysaan ndax وقن جن يورك عيناني عيناني لم يكتبهما قلم في كل عين من العينين نوناني نوناني نوناني لم يكتبهما قلم في كل نون من النونين عيناني وتعنا كنك سواء كنسي بي ak soxna Kiné Sy bi ah fa tabarakallahu dañu di ñu sore ci man te lu yàlla defal boppam la waaw ndax yi ñu lay wan dafay bare waaw yu bari yu ma yitteel ñoom dañuy feeñ ca biir gént ba moo tax rek fa tabarakallahu daje tey bi foog naa ne insha allahu lu fi nit ñaan te fekk mu jig bu soobee yàlla yàlla mën naa def dinga nga ca am li nga bëgg waaw nag yàlla nañ ko murloo ñu ngi nuyu sang yi fi teew yépp ñoom sang yi ñu nekk te ànd ñoom ñu gunge leen ak seen doomi bopp yi ak seen jarbaat yi wa tabarakallahu ni ma ko waxee itam sang yi ñëw nii ci niveau ñi sant si noonu la amee sang yu ñëw itam jóge Touba te sant Mbakke te ni ma séddoo fii noonu laa séddoo fii waaw wa tabarakallahu ni ko Fadal waxe yàgg ak man lool lu xew rek mag ñoom kon nag ñoom it yal yàlla fay leen te seen leeru maam yi ñu yaakaar yàlla bu mu leen raw fa tabarakallahu sunu famille ñaseen ñu ngi may wax ni ma sunu mbokkum bopp ma Ahmed ñas Niass ñëw na teew ci kuur bi barkat yi démb fekk Cheikh Tidiane Sarr bii ma nekkal ni ma dama gis góor gi xalifa ñas biy wéy juru Sidi Lamine ñas ak Ahmed ñas dama ko gis ci gént mu yëkkati àlluwa jox ma ni ma joxal ma ko sama doom sama sët sëriñ Moustapha waaw mun te li ma jaaxal nag bi ma koy wax ci photo la ne waaw gisuma jëmm comme jëmm ni mais ci photo lay gis mu yëkkati àlluwa bi jox ma ko ni ma joxal ma sama doom ak sama sët sëriñ Moustapha moo tax bi ñu ma nee Ahmed Khalifa Niass ñëw na ca daje ba ma ni loolu la góor gi di seddeel fa tabarakallahu waaw sunu waa kër bay yu baax yépp fa tabarakallahu ni ma ko waxee léegi Cheikh Ahmed Tijani moom cëram du affaireu famille waaw ah. ndax turandoom dafay faral di waxtaan ak man ci moom waaw di ma wax tudde giñ ko ko tudde ni mu toll waaw ak ya ca aju yëpp mu di ko waxtaane ak man waaw ah. wa

mbokk mi dawal oto bi ñu seen ci rétroviseur bi kuy def faar foofu ci zone B fekk boobu man maa ngi jëm suma bureau ca siège ba muy def faar di def faar chauffeur bi ni ma mais am na ku ñuy def faar rek de ma ni ko kon droiteel

moo xam xàmmee sa oto ni ma kële di oto Serigne mu la ni ma teeñu ko dab ndax ñu ndokkeel ko ci waxtaanam ci maison du parti mu ni ma loolu moo tax ñu di leen def faar ni sax bëgguma woon ñu di leen arrêté ci di diggu mbedd mi waaye comme c'est l'occasion nit lu ko ñor daf koy wax benn yoon mu ne ma loolu lañu la bëggoon jotal waxuma pour jéemi mu félicité ma du loolu ma tax a jóg mais mbaax gi ak yiw gi ak encouragement bi loolu lay seedeel bokk yi waaye du jëmmi ñu wax mu jëm ci man waaw ba nag wax nañu leen keroog sunu way juru bopp bi xaaji Moustapha Cissé waxtaanam ak la mu wax yépp ak la mu wax ci sunu góor gi Seyid Cheikh Ahmed Tijani mu mel ni tabaarakallahu kon nag ci lay jëm sax bi lay ndeysaan sunu juru bopp bi góor gi Abbas Sall moom góor gi daf ma wax diggante ak moom ni mu soree ak fi ñu jaar ndax yàlla xam-xam lu bokkul sax ak Sëriñ Babacar wax ma fa ñu jaar ak nañu demee wax ma ci lu bare bare bare waaw ba tax kon nag daara ji képp ku baax rek sa cër a ngi ci biir waaw mu tax nag nañuy gën di yaatal rek ku ci cëram nekk rek bu jotee ñu jox waaw mu tax nag kon nag ñu ngi sant ñi fi jaar ñépp moo xam borom daara araab yi la moo xam borom daara nasaraan yi la fu fi nit nekk te def fi ders bu am solo bu ma fekkewul it fekke naa waaw ndax soxna ki ne doon na ma teewal ànd ak njaboot ci boppam yi waaw ma ni kon nag képp ko xam ni teew nga ci jataay bi muy góor muy jigéen fa tabaarakallaahu ñépp nag ci wàllu famille ñu ngi leen di nuyu di leen sant di nuyu njaboot yi soxna Kiné yi mu am yépp soxna ay sëtu ak bokkam yi mu àndal soxna Salimata ak bokam yi mo àndal soxna ndey marem kan bi don wax legi haji cheikh kan moko jur waye haji cheikh kan itam limuy nek nek nekk nijaay ci serigne cheikh birel na adduna yep ni serigne cheikh moy wasilam gannaaw serigne babacar waaw alaaji ousmane kan وتبارك الله مودلو بي خامنا سي دارا بوما مسان نييو تورني فوف دان ما تيج 5 هور دو تان ولا 6 هور دو تان لومو خام سي واخ بو رافيت بو ماك دي ورا ديغال كامو ام دانا مكو ديغال وا مونتا فتبارك الله اي نجابوتم ييبيتام kóllëre boobu ñu ngi koy dox ak ñoom Moussa Gueye it mu may fàttali waa Sokone ñëwoon nañu pour wax ci wàllu El Hadj Dem fekk ma jot arbre généalogique ñu wax fi mu jaar moom Elhaaji Amadou dem ba askanam yegg ci Uqbatu bnu Nafia te Uqbatu bnu Nafia gannaaw Taariq bnu Nusayr moo tas lislaam bi ci désert bi ba Afrique de l'Ouest bi ci des nag góor gu tedd gi moo ko waxal boppam te nee na mooy ka mu toogaloon naan Cheikh Ahmed Tidiane waaye shérif laa wax te nee sëñ Cheikh ni ko man shérif la ndax Fatimatu Lamsaar sara tax waaw waaw nga tax na kon nag ñu di ko sante yàlla rek tey ñaan yàlla yàlla bu yaakaar tas waxuñu fi lenn nag pour gis sunu bopp waaw waaw yonent bi dafa am bés muy wax boppam di wax boppam waaye kàddu gu daanu mu ni wala faxra lu mu wax bu daanoo mu ni wala faxra maanaam du tiitar am na koo xam ne ñemewul sax di wax pour tiitaru waaye shahada nag shahada la وما شهدنا إلا بما علمنا بقد ما ما والله ديسان ام بس بابا يانغا تيا وكام تي انتري بي والله ديسان مسل مول جمعة جارفا هم غاني ما سما خل دا فا نيكون Uh-huh. ca Fass mm-hmm. Baye Sidi Jamil mm-hmm. radiyallahu taala mm-hmm. ma waaye ma sañoon mu yëg ko te yëgugu ko dama bëgg a bàyyi ba beneen ma ne la bu pour yëg ko de mën naa dem léegi wax ko ko nga ni ma kon jëlal taxi aller retour nga jox ma lu ma jële taxi mm-hmm. ma dem fekk ñu di ko ziyaar foofa mm-hmm. ma jaar ca gannaaw mm-hmm. gis sa yaay soxna Ayda Seck ma wax ko ni ko yaa ma yónni ci tura sa turandoo pour ni ko danga fi bëggoon a ñëw tey waaye comme tey bésu ziyaar la te jotul woon a wax ni def fii ñëw uh-huh. mu ni woon naa ñëw pour turandoom yëg loolu Uh-huh. mu ni ma léegi toogal fii xaar ma wallaay jóg jaar ca saal ba ca suuf mm-hmm. déy ko ko neen tuuti mu ñëw ni ma nee na mm-hmm. mi ngi koy xaar bésu samedi mm-hmm. nee ko nee na woon a xale yépp uh-huh. avertir na pour ñu teewe ko uh-huh. wallaay ndeysaan dama ñëw wax la ko nga ne ma kon boog bu ëllëgee nga ñëw mm-hmm. ak Abdou Aziz Fall waaw wallaay ndeysaan mm-hmm. ñu ànd dem mm-hmm. ba ñu demee toog tuuti Ahmada ñëw uh-huh. ni sa turandoo nee na nga yéeg nga yéeg wallaay ndeysaan ñu àndandoo yéeg ca kaw baatu shahada bi nga tudd moo tax mu wax la keroog maa ngi toog mu ni la yoon wii nga jël fi la ko ñépp bàyyi mu ñu la kon si maa ngi lay ñaan mm-hmm. bu ñu demee ba ca kanam mm-hmm. bu amee sax ñu bëgg a génn mm-hmm. na la jaral ngongo yaalu ci seen tànk ni leen du ngeen dem ndax ku ci dem yow la ko sa maam di laaj na la jaral lu ne ndax kat si di ko répété ku ci dem xamal ni bu ëllëgee yow la ko sa maam di laaj uh-huh, uh-huh. ngeen waxtaan fa ba mu ni léegi mën ngeen ñëw dellu ca bâtiment bële ba ñu delloo ba añ ba noppi ne tuuti ziyaar bu mag jóge xaw ma ban dëkk mbedd ma mooma mépp ba ca jàkkay fas ja fees dell ki nit kaar yaa ngi taxaw mhm. mu woolu sëriñ Ahmada ne ko mhm. waxal ma sama turandoo sëriñ Moustapha ne ko mhm. tey duma wàcc recevoir ziar bi hmm hmm na tok waxtanal len ñaanal len yewi len hmm hmm hmm hmm hmm mm-hmm. ahmad da ñew wax lako mm-hmm. nga andando ak mom mm-hmm. ak domam ye ya ñep fauteuil bañ ko tégalon mom waccul ma nga tok ci kaw nga tok fa waxtaan ma ngay dégg waxtaan ya ba waxtaan wa jeex nga ñaanal ñafa togon ñep ba ñooña sax doon ñaan ni bu ñu ñëwatee sëriñ bi mhm. yàlla nañu booleeg turandoom bii mu waxtaanoon wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan mhm. Mhm. ba nuy ñibbi ca yoon wa ca oto ba ma ñu la sa turandoo day wan na la ni fii yaa ko moom ah, dëgg la ñu jóge ca uh-huh. gàmm gu am fii ci Tiwaawan uh-huh. muy bu soxna umu muy bu Serigne Abdoul Aziz mm-hmm. sa maam Abdoul Aziz mm-hmm. daawul génne këram ñëw mm-hmm. ndare du yow lay xaar nga jël si ko xalifa mbay ñu àndandoo ak moom Ablaay Fall daan na ca ànd mu ngi nii mu <laughs> yor bantam boobu am uh-huh. kii mhm. di dox ak tànkam këram ba ca tànt ba uh-huh. nga téye ci loxo bi mhm. Mhm. ak sëriñ Mansour wallaay wallaay uh-huh. xeer bu ma yaakaar ni mën na ko fa kassal maay nekk ci kanam di dandal xeer yi ba ca tànt ba bu waxtaanee ba yeggal ni nga ñëwaat yóbbu ko ba ba ñu ko fekkee aynu maadi benn korité Hmm. yamu la jox ci ay piis ki ay xeetu teraanga. wallaay sëñ Mansour fekkee na ko aussi. sëñ Mansour fekkee na ko hmm, hmm, keroog. kenn xamul na mu toll. wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan. ñu jóge fa. def noonu kër Serigne Mansour. waaw wallaay radiyallahu taala anhum moom it mu feeñal mbégte yaa ngi ànd ak sëñ Mansour Samak ñu ngi ci ànd. mu jël ay kàddu yu am solo fa tabarakallahu jox leen ma gisit ni foofu yëpp ñoom day wan na leen ne yaa ko moom ñu jóge ca mouvement des jeunes tiijan bi nekk Dakar tey def waxtaan ca monument ba am ca année boo xam ni yaa yebal sunu gaa yu baax yi ñu indi matériel bi ñëpp ñëw tànt ko defar ko keroog bi sëriñ Abdoul Aziz de gërëm ña fa teew ñëpp ba ëgsi mm-hmm. ci mustarshidina wal mustarshidaati mm-hmm. dafa ni yéen ñi fi toog ñépp nag ba mm-hmm. gannaaw ba mu la gërëmee ak yang fa def mu fi toog ñépp nag sëñ Moustapha leen moom kon fa tabarakallahu ahsanul xaaliqiina boo toogee tey wax façon bii nga waxee mu delloo ma mm-hmm. ca mm-hmm. la ma la waxoon ca sunu jotaay ba ca sa kër mm-hmm. ni la sëñ alal du jóg di seeti boroom boroom alal mooy jëkk wër alalam dajale ko te li fii yépp yaa ko moom fa tabarakallah sunul xaaliq te ëllëg sëriñ mm-hmm. Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum dafa wax ni mm-hmm. dëgg tey yii ñuy dund mm-hmm. nee na coono yi démb yaa leen jur tey nga taxaw woote ci takku taxaw yaatal pour def coono boo xam ne tey am na dëgg bu neex bu mu ñu indil ëllëg defe naa ni ci boobu langage nga waxee effectivement mais bien sûr loolu la fa tabaarakallahu ahsanul keroog sax maa ngi lay tooñ ca sunu jotaay ba la sëriñ bi dama may ma laaj la leen mm-hmm. nga ni ma bismillah mm-hmm. ma ni la ma soo am sago ci Serigne Cheikh mm-hmm. da mas di napp ci moom danga mas di fonk fa tabaarakallah ma soo sax àttan jotaayam ma lay tooñ ni la waaw loolu yaa ngeeg moom ba léegi nga ni tekk ba yàgg ni ma yàlla su waxul woon la sharika lahu mhm. ma dendale ko ak moom mhm. Mhm. boobu wax ban wax moo ko mën a tee féete kaw moom xam na ko wallaahi mu fàttali ma nettali naa ko sama mama ne mii dañu koy wéttali ko mu wéttali ah, ah. ma ni ko defal nga ñu loo xam ne maak xalifa mbay mii ñun de booba ba tey fu ñu paree suñuy lazim ak suñuy wasifa ñaanal la mooy yoor yooru weeru koor gën ñu jiite la woon ca kanamu Serigne Cheikh cëral la hmm? bésu àjjuma ni tey waaw wallaay hmm? nga dem ñu toog ñun ñett cërale wallaay ndeysaan nga ni ko mm-hmm. ma ànd ak sama gaa ñi mm-hmm. bëgg nga cheikhe lañu ci tarixa bi wallaay ndeysaan mu ni ah mm-hmm. am kilifa de jot na uh-huh. du ko fàtte mukk daal di joxe charte yi ba mu jeex ndax d'accord ngeen la ca teg ñu ne ko d'accord nañu fekk ku ne mi ngi la teg ci fauteuil boo toog ba ñu ko ne d'accord nañu mun kon wàcc leen toog ci suuf ah. ñu wàcc toog ci suuf mu yóotu loxo xalifa mbay mii mm-hmm. mm-hmm. jàng la muy jàng mm-hmm. nga topp ci mu jël la yóotu sama loxo uh-huh, uh-huh. jàng la muy jàng yóotu la uh-huh. nga ne ko dañoo bëggoon nga firul ne jawharatul kamal ndax bu ñu koy werd mën a teewlu maanaay mu ni kon danaa leen ko defal ci kaset jotuñu sunu cassette yàggul tuuti ca sunu tournée ba ñu dem Thiès kër Baay Alxaaj Ibrahima Samb yàlla na ko yàlla dolli leer nga firi fa Jawharatul Kamal ba ma ne la xanaa dangaa jot sa cassette te jotaguñ ko wallaay ndeysaan ci anam goo xam ni fa tabarakallahu ahsanul xaaliqina dem na dayoo li nga tudd baatu shahada moo tax mu indi yëpp delloo ko ca xawaadisul xayr laa tunsa walaw ba'udat barakallahu kon fa tabarakallah ahsanul xaaliqiin na ñu ngi lay doollee ñaanal wallaay incha te di la wax ni mhm. ñi la jur ñëpp bëgg nañu la noonu ngi lime say maam yooyu ci biir waxtaan wi mhm. ci loolu nga xam ni gént sax lu tudd waaye du gént ndax mm. ñooñu ku leen gént gis leen du gént kese kese mm-hmm. yóbbante bu wér la mm-hmm. sëriñ bi sa baay yi nga am noonu lañ la bëggee sa ñi nga bokkal sa maam xalifa sa maam yu baax ya ba ca maam xaaji malik noonu lañ la bëggee fa tabarakallah sunul xaalixiina ñu lay dollee gërëm nag di la dollee ñaanal uh-huh. di dollee dalal suñuy xel uh-huh. ci mhm. sëñ Samba Cissé yaa ko tudd léegi mu ngi nii toog mhm. uh-huh. bés bu jot mhm. mu ne ma man de li nga xam ni mooy sama tarbiya ci wàllu kër gi ñu ngi koy def ci wàllu ñaan nañu jéem a seet nu ñu organiser woon ak hmm. jéem a seet nu ñu jàppale Serigne Moustapha incha hmm. allah hmm. Cheikh Tidiane Niang bu Ndar noonu noonu wallaay commissaire a ngi ma naan bul fàtte yóbbante Cheikh Ahmed Tidiane Ndar ba wallaay jot naa lettre am ndeysaan xalifa mbay mii bés bu jot fa tabarakallahu sunu waxtaan du génn loolu ndeysaan barakallahu Billy Pay la même chose ñëwoon na keroog ci ouverture ba ah, ah, fa ah. tabarakallahu sunul xaaliqina moo tax langage bii nga wax waxee ko ba noppi def appel bii nga xam ni fa tabarakallah sunul xaalixiin mm-hmm. du dara lu dul mm-hmm. yëngal gillinti yi mm-hmm. dëgg la rek doom bi naaw yëf yi fa tabarakallah sunul xaalixiin a yànjaat taxaw nañu tem nag teel nañ ci àgg jàmm nga baal ñu nag ci kàddu gi mënu woon a ñàkk ndeysaan tabarakallahu ah mu ngi guddi dina ñëw ci sama mbokk mu baax mi waaye ci sang yi ñu doon lim tabarakallahu duñu wax ni soxna Ndey Astu Saar bu soxna aminte si ak euh, Sëriñ Muniru mu ngi fi teew yaay moo ko wax mu ñëw teewal ko fi teewal waa kër gi yëpp ñu di ko nuyu di ko sant bu baax a baax soxna Ndey Astu moom dafa mas a nekk sama cër rek ca jamono ba muy nekk ci soxna Zeynabu ah wa tabarakallahu e moo ko maam As ñu sedde ma maam as ca daara ja yéen ñëpp xam ngeen ci dara fa tabarakallahu moo tax ñu di ko nuyu bu baax a baax di ko sant di ko sargal ci teewaay bi soxna ndey cheikh moom lu may répété ti nekku fi wax naa leen ba tey ni sëriñ Mansour masul xam sax ni soxnaam la ndax jàpp na ni man lay sama soxna fa tabarakallahu sëriñ Babacar itam mook ñoom Cheikh Tijani bii

kàddu yi mu ciy sànni pour sant ñi doon jàpp ci université bi mu sànni ko ci liste yi nga xam ni ci lañu ñu bind ñi fi teew ñu man leen jàng bu ko defee rek ñu ñaanalante yeewi nit ñi ndax koor la xam naa ni sax tabaarakallahu moom bu ñu jëmoon ba fajarit nit ñi duñu bouger ah تبارك الله آه سموي ويجرو بابيتم الحاجة أمدو جلو ديف دي سيبتي كرنو سيد نورو تال تبارك الله دي سما ولر دي سما لب جمانو بومكو يوني انفيتاسيون ديف ماي وخ نيما بوما وووون با باماكو ايت دينا نيو با باماكو فك لا فا واه شيخ تجاني بي توك شيخ مبنگو moom tabarakallahu dama koy yërëm sax daal li mu yenu ci cofeel yenn ko ci yëg-yëg yenn ko ci yéene ci man xajul ci moom waaw te Moussa mi xam na ci dara dafa ñuy daje di fa waxtaan ñoom ñoo xam lañ fay waxtaane fa tabarakallah moo tax nag ma di ko encouragé moom itam te di ko ñaanal yàlla rek yàlla na yàlla di ñu mottalil ba ñu fa ñu bëgg yegg ñu yegg fa incha allahu sama doomu bopp bii nag dingeen koy faral di gis sax ci daje yi dinaa koy faral di tudd ci sunu waxtaan bu mujj bi ñëwoon na muy Sébastien Guèye bii wa tabaarakallahu moom dafa wax ni man may baayam waaw ndeysaan dafa mel ci man nu nga xam ni mook waa këram mosuma gis mukk lu mel noonu waaw wa tabaarakallaahu moo tax li mu fi nekk yépp lu fi am rek du ko wuute dana ca teew fa tabaarakallaahu teew ba gën a rafet ma di ko nuyu di ko sant di sant itam soxnaam Rachel ak sunu doom bu ndaw bi fa tabaarakallaahu Juliette di sant itam pap mi nga xam ni moom laa leen booleel mu di leen encadré te di leen wéttali fa tabaarakallaahu di ko def ci façon ba mu gën a rafete bu ko defee kon nag Haj malik ñu jox la kalimaat yi nga wax ko sant ñi nga war a sant rek boo paree ñu wax na ne am na ñu bëgg jël werde bi bu ko defee ñu jox leen ko rek te yi nit ñi loolu taxoon sax ñu tànnoon pour def ko Tiwaawoon ndax moo xaw a nekk ci centre bi ndax ñiy dellu Ndar ak ñiy dellu Kaolack mo baña sore ci ñom na ñu mëna delu ci bokk ya ñu ngi ñaan yàlla yal na yàlla tetti ñep ba ku ne dellu ca fa nga joggé won ànd ak jàmm ànd ak barke ànd ak lér ànd ak sutura ko ak xaaj Malick bismillah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام سماحة المرشد العام فضيلة الشيخ محمد بن مصطفى السي حفظه الله وأيده ورعاه أصحاب السماحة والفضيلة السادة الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه هي الدورة التاسعة عشرة عشرة والله تستأذن للرحيل كما استأذنت من قبل مثيلاتها لتبقى هذه وتلك منافع للناس فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيبقى على الأرض والله سمو المرشد العام بمبادرة طيبة من عندكم اخترتم سلفنا الصالح موضوعا مركزيا لهذه الدورة آه. وإن في ذلك لعبرة لمن أراد أن يذكر وتكمن أهمية موضوع السلف الصالح في أن أقدامهم كانت راسخة على درب الرسول محمد صلى الله عليه وسلم نعم. خفا على خف فيصفهم المولى عز وجل بقوله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا وربما دعا سموكم إلى اختيار هذا الموضوع ما نقرأه في آية أخرى حيث يقول سبحانه وتعالى فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون فأراد سموكم أن تعود المياه إلى مجاريها والغنم إلى حظيرتها وليعلم هذا الخلف أن واجبهم هو أن يبلغوا رسالات ربهم ففي ذلك تطبيق لوصية الرسول صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وعليهم أن يعملوا لا على شاكلتهم ولكن على شاكلة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وعلى هذا الأساس وعليه وحده قامت اللجنة العلمية لتستعيد تاريخ حياة هذا السلف لعلها تأتيهم منها بقبس وبدأت الرحلة انطلاقا من تشيرنو سليمان بال آه. إلى صاحب سمو الشيخ أحمد التيجاني سي حفظه الله وأيده ورعاه مرورا بعظماء الإسلام ونذكر منهم الشيخ مور خجة كومبا أه، سيرين بيغا بال نيو لي li جوتا واخ a wax duñu ko tekki ci wolof waaye آه. pour ngeen xamni mak mag ñi yàlla baaxee mhm. wala mak ñi nga xamni yalla baxé na Sénégal ñu am ko mhm. ni ko sëriñ bi waxé ñom ñëpp visité nañu seen dundu mhm. ci 19e édition bi nga xamni ni lañuy la ñuy clôturer tey dinañ ci tuddu Mor Khoudia Kumba dinañ ci tuddu Cheikh Khadima Jaxate Kala a Cheikh Mor Galaye Diaw Thierno Ahmadou Ba Cheikh Amari Ndak sek sëriñ Pir Ali Amar Fall a cheikh Ahmed Dem ca Sokone muallifu Diyaau Nayrayn a cheikh alxaaji Omarul Fuuti Taal Thierno Saïd Nourou Taal a cheikh alxaaji Malick Sy a cheikh alxalifa Aboubacrin Sy a cheikh Hadi Touré sëriñ Rawxaan Ngom a cheikh alxaaji Abbas Sall a cheikh Ahmed Cissé Pir a cheikh Alioune Guèye fii ci Tiwaawan borom wa ma kuntu adri qabla an tuudaa sara wa xaqiqa anna alchamsa fi ramsi taghrubu Seydina Aline Gueye moo ko waxoon ñu nafar dundam ci biir université bi Serigne Cheybatu Fall ziar nañ ko ci biir université bi ñu jàll ca wàll gële fekk fa suñu maam Ahmadou Bamba Mbakke moom itam ñu visité waa dundam ak lim fi bàyyi ci ndono tofal ci Serigne Bachiru Mbakke njabootam la borom menanul baaqil khadim fi siirati cheikh il khadim moom itam ñu visité dundam visité lim fi bàyyi sëriñ bakke busso visité nañ ko sëriñ Daam Abdourahman Lo visité nañ ko sëriñ Ahmad Diop Paxa visité nañ ko borom yaa qawmi muini saakini Paxa Jaw laa siyama mustainun jadduhu yoro jaw kooku visité nañ ko te ndaboo de suñu maam sëriñ Tuubaa sëriñ Ahmad Lamine Diop daana visité nañ ko itam xool lim fi bàyyi borom irwa un nadim fi azbi xibbil xadim sëriñ Issa jenn visité nañ ko sëriñ Sidi Muxtaar Kunta fii ci Njaasaan visité nañu dundam ñu gis ci dundam ni juróom-ñett fukki at ak ñeent la dund bàyyi fi juróom-ñett fukki téere ak ñeent ko kon dundam dara taxawalu wu ci visité nañu dund suñu maam alxaaji Abdoulaye Niass suñu maam maam xalifa ñas mi nga tudd léegi suñu maam alxaaj Ibrahima Niass visité nañu dund suñu maam alxaaj Abdoul Aziz si suñu maam Mouhamadul Mansour si visité nañu ba ñi nga xam ni ñooy seen njaboot ci jamono yi gën a mujj ku ci mel ni Mouhamadou Lamine Aaj defe naa ñi fi jàng al adabul arabi a senegal yi ñëpp xam nañu ko wa kazalika Cheikh Ahmad Tidiane Gaye ñi fi jàng al adabul arabi yi ñëpp xam nañu ko waaye noonu la ñu encore suñu mbokk sunu wayjur dundam alxaaji mustafa Lo ci saji la bok mom ñu bari sax xamu ñu ne adib la won boole ci mom mo wax ba muy wax ba muy tagg góor gi ni basalatuhu laysat li antarata allazi yaxiru lahu shuja'an min qutabil xayli loolu suñu wayjur haji mustafa Lo moko ko ci mbaxu kilifa gi Seydi Alxaaji Maajoor Siise visité nañ ko suñu mam Cheikh El Hadj Mounirou Sarr visité nañ ko mom itam limu bind ci adabul arabiy jaarat nañ ci borom rasul manasibi allah zi madadin wa ba'dahu az-zuhd la tartab bi muntaqidi wa kun ala qadami al ahrar muqtafiyan atharuhum la tabit laylan maa al xasadi kooku suñu maam Hadj Mounirou Sarr moo ko xoon waaye nag ñu ngi jeexale édition bi ci sunu ñaari maam yi muy Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma ak Serigne Cheikh Ahmad Tidiane Sy mi nga xam ne lu jiin njaaga te mooy njaag conférencier yi sant nga ñëpp te xam nañu itam dara ump la ci oustaz Lamine Sall jaar na fi docteur Mohamed Ndiaye jaar na fi docteur Mouhamadou Bachir Ngom jaar na fi professeur Cheikh Tidiane Fall de université Saint-Louis yarnafi professeur Mbaye son excellence Moustapha Cissé tous nos collègues. collègues. suñu Mbok Bop, Serigne Bachir dem ca Sokone suñu Serigne Sam Bousso jóge Touba Indale délégation bu mak bu ko gunge ak ay nuyoo yu jóge ca suñu baay bu tedd ba ca Touba suñu mbokk oustaz Maam Ousmane Ndiaye suñu mbokk oustaz Tayrou Fall ñom ñëpp jaar nañ fi tabarak allah waye li ci gëna ragne ku nek sëriñ bi moy taxawaye suñu nempanti la cellule des cadets la cellule des cadets def nañ fi taxaway bu am solo bu ràññeeku تميزت هذه الدورة بمشاركة نخبة من طلائعنا الأعزاء تكللت أنشطتهم بحوار بناء اطمأنت به القلوب وترسخت به الآمال وأعادت إلى الأذهان تلك الآية وأما الجدار وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري zalika tawilu maa lam tasti alayhi sabra sëriñ bi édition bi bu jataay bi amul woon sax jataay bi am démb tëj na ko te muy jataay bi suñu njabootu kade yi amaloon te exposé ya suñu mbokk mi Cheikh Ahmed Tidiane Sarr mii ak mbokk boppam bi Serigne Cheikh Ahmed Tidiane si mii te taxawaloon ko ca jataay ba ba ci suba rek TFM ñu ngi koy teg di ko tegaat di ko tegaat mm-hmm. loolu nag yal na yàlla mott mottali loolu rek doyoon nañu sëkk mbégte mu doonoon clôture dix-neuvième édition bi nga yéene njaboot yépp yiwu yàlla mm-hmm. yéewe leen yéene leen ñoom ñépp texe ci mm-hmm. bëccëgu koor gile moo tax nga baaxe ñu may ñu lii ci sa jot yal na la ci yàlla fay yiw li fi nekk nag sëriñ bi ci ay cant daanaka mat na téere xaw ma nu may def nag ndax sama doyen ñu ngi ma naan tënk ko te ñoom ñoo bind tur yi jox ma ko waaye ñu ràmbal ko rek mm-hmm. ñu ngi sant ñu ngi ko tàmbale woon ci boroom ki ñu mën a tuddee président de la république mm-hmm. Haji Macky Sall mm-hmm. wax nañu ni moo gouvernement am jàppale nañu njaboot yi rawatina nag ministère de la santé taxaw njaboot njabooti ci wàllu médicament taxawaay bu am solo mm-hmm. ñu wax ni itam ñu ngi sant suñu mbokk bopp xalifa Ababacar Sall mm-hmm. maire de Dakar mm-hmm. moom itam taxawu na njaboot yi te miin nañu taxawaayam ci wetu njaboot yi moom itam yal na ko yàlla dëgëral te yàlla mootil ko yéeneem waaye ñu ngi sant itam suñu ay mbokk yu nekk fële ca biir Ndakaaru ñu gën ci miin Elimane Saliou Ñing directeur général de duwaan avec M. Abdurrahman Wad, son directeur de cabinet, avec le colonel Papa Ndiaye, chef de bureau MOL 8, avec le colonel Abdurrahman Dje, chef de visite MOL 2, avec le colonel Mbaye Ndiaye, avec le commandant Sokhna Arwa Kan, avec le commandant Lamine Sall. nous avons ñu ngi leen di sant ndax seen taxawaay ci liggéeyu njaboot gi solo le commandant Abdoulaye Saungom, Ngom le commandant Abdoulaye Diallo fële mol 2. du ñu fàtte ñu ngi ko tudde léegi suñu mbokk Souleymane Niang dafa doon fekk njaboot yi ca daara ja di leen baax ay xeeti ndogu ndax dabu ci sa ngërëm dabu ci sa kontante moom tamit yàlla na ko yàlla fay yiw mbokki Aliya Diène mhm. dëgg la fii la ñu clôturé tey waaye édition bi ñoo ko moom université du ramadan saa bu jotee bu ñu ne taafeere weeru koor ba kër ñuy jeexal édition ba mhm. seen kër yépp dañ koy ubbi njaboot yi kër gu leen neex dugg yeesal seen njàpp julli seen timis julli seen gee soog a ñëw ci salle bi ñooñu nag ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci sa tur di teg cant li ak ngërëm li ci loxo seen doyen Cheikh Ahmed Tidiane ak soxnaam soxna Ndey Kumba Jéen du man lu dul wax leen jazakumullahu anna xeyran yal na yàlla fay leen yiw ñi ci des ci cant yi ñu ngi ciy jiital rek délégation yi fi teew ñu ngi def ca bopp ba ñi fi teewal suñu maam Cheikh Ahmed Tidiane si hafizahullah wa yado waraa loolu xam nga waxin la waaye ñi fi nekk ñëpp moo leen moom moo leen moom kon bu ñu seppee ñenn ni teewal nañ ko fi waxin la rek ñu dégg ko noonu muy xaaji Serigne Samba Cissé ni mu fi teewee noonu la doon teewee ci biir cours yi ñu passé yépp ci ginnaaw mm-hmm. euh, famille religieuse yi ñoom itam tabarakallah ñëpp a ngi fi sëriñ Njoogu si Maodo. Mm-hmm. soxna Kiné si. Mm-hmm. soxna Kiné si bu jógee Dakar soxna mm-hmm. Ndey Cheikh jàlloo soxna Ndey Astu Sarr soxna Astu Dramé. suñu ndeyu daara soxna Ndey Mariam Kane. soxna faatu Seck. sëriñ Fallou Mbacke mu ngi fii jël na kàddu léegi. sëriñ lamin Sall fils de sëriñ Abbas Sall jóge Louga. délégation sëriñ Moustapha Cissé de Pire. mu ngi fi dirigé par sëriñ Amadou Cissé. sëriñ Maodo Cissé Pire mu ngi fi. sëriñ Moustapha Dem mu ngi fi. Serigne Omar Seydina Omar Dem mu ngi fi. Serigne Ahma Mbacke fils de Serigne Modou Mbacke Modou Kara Mbacke mu ngi fi. ñu seedeel la ni amul benn cour bu mu wuute. waxtu wu nekk dina ñëw avant leur mhm. dina toog ci kanamu njaboot yi wettili leen ci ndigalu waajuram Serigne Modou Kara Mbacke. Mhm. koy rafetlu bu baax di la ko seedeel ci sa kanam. Mhm. wa kazalika Serigne Mouhamadou Seck jóge cene ba mu ngi nii toog. moom itam ratewul benn cour tabarakallah imam Moussa Gueye moom itam nii mu toogee ci sa wet xaarul ba nga ñibbi mu soog a ñëw waaye dafa daan ñëw di ànd ak ñun di ànd ak njaboot di leen gunge El Hadji di seet ci Serigne Maguey Njare moom itam mu ngi fi maam Ousmane Ndiaye conférencier la woon def na waxtaan bu am solo mu ngi fi ci jataay bi délégation Serigne Sam Bousso moom itam dirigé par Serigne Ibrahima Faye mu ngi fi ci tànt bi maam Abdou Sy ak mu Moustapha si ñu ngi fi ñoom itam di ñu wettali ci jataay bi Sidi Muxtaar Kunta ma nga nele nga gën ñu commune macha allah moom itam ku am cofeel ci liggéey bi la am cofeel ci sa wàll mu ngi fi ñoo ngi koy sant Haaji Pape Mafal Samb mu ngi fi Serigne Mouhamadou Mbacke Wadoud moom mu ngi ni jógee tubaab moo ko tax a xaw a guddee egsi ndax xamoon nañu xamaloon nañu ni am na téq-téq bu ko tënku Touba waaye dina fexe ba si uh-huh. fekk si la ci jataay bi indaale nuyooyu suñu maam bu tedd ba fa nekk ak suñu mbokk yu baax ya fa nekk Haji mm-hmm. Pape Malick Diop mm-hmm. di doomu soxna Kala Mbaye mu ngi fi mm-hmm. délégation administrative et politique ñu wax ni monsieur Diadia Dia adjoint au gouverneur de Thiès mu ngi fi ci tànt bi toog monsieur Moussa Ba adjoint au préfet de Tivaouane mu ngi fi toog monsieur Cheikh Tidiane Diouf député mu ngi fi toog Hadj représentant parti Réumi, teewal fi Idrissa Seck ak ñi andal, ñu colonel Malik Sissé, tout nga ko collègues, monsieur Racine Mbaye mu ngi fi toog ak suñu mbokk bi di ak si léegi Hadj ak ñi andal, mu Thiès te yóbbante Badara Fall ay yu jëm mu ngi fi toog ñoo ngi koy ñaanal yàlla yal na ko yàlla dëgëral mm-hmm. remerciement yi nag sëriñ bi mm-hmm. mbokk yëpp ànd nañu ni nanu jëkkee ci remerciement yi mm-hmm. la télévision TFM TFM guddi gu nekk bala ngaa tëdd ñu tegal la édition université du Ramadan boo xëyee itam bala ngaa teg say tànk ci suuf ñu tegal la édi ñu tegal la waxtaan bi ba sànq ci bëccëg lañu ñu mujj a teg waxtaan bi li te xam naa ne ñu ngi xaar ñu yëkkati jataay bi ba ñu tegal ñu waxtaan bi li ñoom itam ñoo ngi leen di sant di leen ci remercier bu baax a baax a baax a baax xam nañu ni am nañu suñu suñu télévision bopp waaye du tax nag ñu fàtte seen taxawaay uh-huh. Mourchid TV. ñu ngi fi ànd ak ñun boobu ba tey donte ni ñoo ko moom. Uh-huh, waaye nag wax dëgg yàlla fekk nañ fi ñu leen di jàppale ñu leen di wettili ci liggéey bi. Uh-huh, uh-huh. muy TFM. muy itam suñu mbokk yi.